Bonjour et bienvenue à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous, à tout chacun, à tous les téléspectateurs de la 2STV. Bonjour et bienvenue. On est très ravis, comme tous les matins, de partager ces moments de télévision avec vous euh, dans l'émission Le Good Morning. Merci beaucoup à Stukan John. Merci beaucoup à l'ensemble des équipes de la 2STV qui nous permettent de regarder en temps réel ce qui se passe en termes d'information, en termes d'éducation et en termes de divertissement. Ce qui est euh, les missions complète de la télévision. Bonjour et bienvenue. Dans le Good Morning, les mardis, on parle de transport interurbain et de ce qui se passe dans les grandes villes et les coins et recoins du Sénégal. Transport bi tey nag on va faire une suite par rapport au débat des motos. C'est la raison pour laquelle Bathie Touré a porté son attention sur Maxime euh, Max Deroux qui revient à la charge parce que dañ fay jooyoon jooyu mitti nag ñun dañoo toogoon dajaloo kaas xuloog borom moto yi xuloog état bi parce que état bi am na lu mu war a def borom moto yi am na lu ñu war a def mais fi mu nekk nii am na ay avancement yu si am fan la toll si vous voulez connaître l'actualité concernant les borom les borom moto euh, vous pouvez vous joindre à nous sur le digital nous sommes en direct sur Facebook et sur YouTube en même temps sur les pages Facebook de Pape Sidi Fall tout en majuscule et page Facebook de 2STV l'officiel foofu di ngeen fa mën a joxe seen xalaat beneen partie bi euh, The Actor normalement devait devrait être là mais bon n'étant pas possible pour lui donc il n'est pas venu aujourd'hui mais on garde quand même euh, ensemble le le l'émission pour fàttali li nga xam ne moom moo fi mësoon a xew ci Sénégal bis ñi ki tey damay tàmbaleeg xibaar boo xam ne xibaar bu piis la maa dugg ci ay éléments yu Grégoire wala jàllale pour au cas bu ko jàllalewul quoi ngeen xam ne dafa jël décision boobu voilà moi je travaille et je donne à celui qui doit faire le reste et il le fait voilà ñu tàmbaleeg bis ni tey tombeek ñaar euh, fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet bis ni ki tey ca njaareem le 19 juillet 1927 ci la kon ki ñuy wax xaadimu rasuul Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké mi xàll yoonu murit bis ñi ki tey kon la génnoon àdduna avec la complicité de Grégoire qui a déjà les images euh, rappel à Dieu de Cheikh Ahmadou Bamba le 19 juillet 1927 à l'âge de 74 ans kon Serigne Touba Khadim Rasoul bis ñi ki tey la génn àdduna kon ci lañ ko fab yóbbu ko ca Touba daal di ko fay jébbale boromam tey jii boo demee xabrom ay milliards ay millions ngi millions ngi doomu aadama ñu ngi fay dem di fa ñaan ñaanal ka fa tëdd waaye ñaan fa seen soxla ci barkeb ka fa tëdd mooy Serigne Touba Khadim Rasoul le premier xalif de Serigne Touba fii Serigne Modou Moustapha Mbacké nga xam ne moom moo ko wuutu juste après mu ñëw kon bis ni ki tey en devoir de mémoire et en rappel historique bis ni ki tey kon la Serigne Touba Khadim Rasoul génnoon àdduna bon j'attire l'attention de tous les téléspectateurs je parle des des euh, de, des choses avec des éléments à l'appui donc Grégoire peut-être il prend la décision de pas le diffuser waaw kay góorgóorlu rek boo defee baax na boo deful baax na voilà euh, ñu jàllaat ci beneen boo xam ne moom mooy euh, le 19 juillet 2002 début de la fourniture d'électricité du barrage de Manantali barrage de Manantali nag li ko sabab moom mooy barrage la boo xam ne benn dëkk bu tudd Manantali foofa la ndox di walangaane ñu def fa barrage boo xam ne dafay produire électricité bis ñi ki tey en 2002 ci arrivé wu président de la république Abdoulaye Wade kon ci la ñu daal di jël ndakaaru ak agglomération bi ko wër yépp jox leen courant bu bàyyee bàyyeekoo ci barrage de Manantali balaa jamonoy 2002 Dakar yépp li ko doon alimenté mooy courant bi doon bàyyee ci centrale bu jugee ci Cap de Biche bi nekk boori Rufisque donc bis ni ki tey le 19 juillet 2002 kon ci la kon Sénégal tàmbalee am fourniture d'électricité bu bàyyi ko ca barage de Manantali Ndakaaru ak agglomération bi ko wër doon jëlee foofa courant lu jiitu loolu Cap de Biche moo leen daan jox ñu dem ci beneen xibaar le 19 juillet 2018 imam bu uteeg imam yi Amadou Ba dajale woon xaw ma parcelle ñu doon wax naan ko julli wuñ tisbaar julli wuñ takusaan julli wuñ timis amadu Ba yaa ñu jaraloon man imaam yooyu xaw ma fa lañ dëkk ci parcelle mais war naa leen a gis ku gis imaam yi nekkoon parcelle ci amadu Ba meeting am bi naan ko julliwuñ tisbaar julliwuñ takkusaan julliwuñ timis ndax yaa ñu ko jaral non imaam yooyu war naa leen a gis ba xam lan moo tax lan moo nekk seen ay intention balaa ma leen di juger parce que bëgguma juger te xaw ma daal kon bis ni tey kooku ngeen gis moom mooy imam Alioune Badara ndaw le 19 juillet 2018 après avoir passé près de trois ans de détention préventive pour terrorisme supposé na baamuta leer dañu ko tuumaaloon ne dafay def terrorisme ñetti ati kaso lañ ko tëj moom imam ba dara Ndaw furaas dallu xëddeen ba bañ ko attee këram lañ fa fekk moom mooy mëq doom ne ko amul autorisation waaw du man enquête kat yi wàllu yoon ñoom ñoo ko setal ba mu set wecc ne ko li ñu lay toppee mooy un mois de prison avec sursis pour détention d'armes de second degré sans autorisation maanaam ngànnaay gii nga yor sa kër mëq doom la te amul autorisation wu yor ko moo tax ñu tëj la weer waaye weer woo xam ne doo ko tëdd sursis la kon imam ba dara ndaw moom ñu tuumaloon ko ci affaire u terrorisme bis ñi ki tey kon lañ ko wàccoon le 19 juillet 2018 imam Alioune Badara Ndaw bu Kaolack bis ni tey kon ci la retrouvé woon sa liberté le saviez-vous dafa am way wu saa bàyyi coon sekk musoon a way sax ci biir suuf tey dundee néew ci biir suuf xanaa ñoom xanaa ñoom xanaa ñoom duñu woor ba dama bëggoon wax nit ñi rek ne leen sax yi nekkuñ ci biir suuf sax yi ci biir nit ñi ñuy suul ci biir suuf lañ nekk ku ci nekk sax yi la war a lekk mu ngi ak yow fi mu nekk ngay dund ku ci nekk sax yi la war a lekk ñu ngi ci sa biir boo lekkee ñoom ñoo lay jàppale jàppale ci digestion bi maanaam pour mu gaaw a rees déedéet sax yooyu mënoo ci ñoom dara sax yooyu nag li wolof naan sama boutique yee ngi lekkante du hasard sax yi ci biir suuf yow mii dem ci biir suuf yaa leen fay yóbbaale sax yi boo toggee ñaari fan lekkoo mën nañoo maw di lekk ci graisse yeeg yi des waaye boo toggee ñetti fan lekkoo ñoom ci seen bopp ñooy génn ci sa biir commencé laa lekk parce que faw ñu dund bu ñu demee ba nga jeex yow amatuñ lu ñu lekk ci yow ñu door a dee waaye sax yi ci biir suuf nekkuñ ci biir suuf loolu la saviez-vous boobu doon wax naan les bactéries qui se trouvent actuellement dans votre ventre, dans votre intestin, c'est celles qui vous aident à digérer les aliments, sont celles qui vous mangeront juste après votre yàlla nañ ci yàlla musal mu yéex. Et si on de bonnes affaires? On parlait de bonnes affaires. On va vous de Yao, papi. Amdi. dafa créé wu en 1998 Google judd à côté de yow mais yow moo ko ëpp doole Google ñëw ne yow doo ñu jënd ñun waa Google un million de dollars yow dal ne mooy boy dañu dof xanaa seen application xurdab bi ñu ne un million de dollars 98 4 ans après 2002 yow xam ne juum na ci jënd bi mu waroon a jënd Google à un million de dollars mu bëgg a jënd Google trois milliards la fay Google ne ko Google trois milliards a ngi nii Google ne ko noonoo man fi mu nekk nii dépassé naa trois milliards boo bëggee fay ma cinq milliards nga jënd ma yow bañ 2008 Microsoft Bill Gates taxaw nekk soxla na yow nañ ko ko jaay pour quarante milliards yow bañ yow moom amul sens yahoo mooy yahoo point com yahoo point fr yahoo nangam nangam 2016 yahoo ñu ngi ko jaayee 4 milliards 6 lu nekk ndaj na ko yow am na ëpp xool c'est-à-dire léeg-léeg nga gis sa wërsëg ci dara nga bëggee ngaf nga fi c'était ça le saviez-vous ci kanam tuuti on va vous faire passer euh, en